askan wi ci ay jafe-jafe yu méttee métti jëm ci wàllu dem beeg dikk bi nag kër gi nga xam ne rek moo di societé bi yor wàllu dem ak dikk fii ci réewu Sénégal nag di Dakar dem dikk moom nag ma ngay xam ne ni daal ne trafic bi daañu ko dooraat ci diggante Ndakaaru jàpp Ziguinchor addu jëmale ci beneen yëglekaay mu di Le Soleil nag moom ma ngay xam ne nag ne Sénégal bokk na ci ñaar fukki dëkk yi nga xam ne rek seen croissance jamono ji gën naa yokk ci àdduna wërngal këpp ci atum 2024 mu di ay xibaar yoo xam ne rek njiital groupe bu Banque africaine de développement nag mu ngi koy dëggal ci yëglekaay bi di la soleil leneen loo xam ne rek fekk nañ ko ci beneenub yëglekaay mu di jéego yi nga xam ne rek ñu ngi koy amal jëmale ko ci processus électoral bi ñeel élection présidentielle yi yéenekaay bi di enquête nag dellu siwaat ci waxtaan yi nga xam ne rek ñu ngi koy amal jamono ji daal di addu jëmale nag ci bàyyi gi ñu bàyyi ay détenu yoo xam ne rek dañ leen a jàppoon ci kaso bi yéenekaay bi ne Pierre Atepa Goudiaby nag moom ma ngay wéyal ba nëgëni sii nag waxtaan yi nga xam ne mu ngi koy amal Ousmane Sonko nag la muy sàkku jamono ji bokk na nag ñu daal di libéré ñëpp nga xam leen tëj ci kaso bi waaye tamit nag amal élection yi ci weeru mai wala weeru juin moom président Macky Sall mu daal di tekki nombal tànkam koo xam ne rek daf ko fiy wutu ngir mën a organiser élection présidentielle yi lu jëm ci organisation élection yooyee nag président Macky Sall nag ma ngay amal ay consultation ci yéenekaay bi di Le Quotidien nag corps électoral bi fi mu toll nii nag dañoo bëgg a amal ay waxtaan ngir xam ban date la ñuy jàpp nag ngir mën a sóobu ci élection présidentielle yi lu jëm ci jongante njiitu réew yooyee nag l'observateur moom ma ngay àddu jëmale nag ci poisson bu 2 avril yéenekaay bi ne jeexitalu mandat président de la république nag te duñ ci amal élection Ahmed Ndiaye di ab juriste di xamle ci biir yëglekaay bi ne bu ñu weesoo ñaari fan ci weeru avril moom président Macky Sall nag dootul mën a jël benn décision mu Ndiaye Cissé nag bokk ci aar suñuy élection nag di xamle ay ndaje yoo xam ne rek war nañ ko séq candidat yi bu ko defee ñu waxtaanee nag lu jëm ci date bi ñu war a amal élection yi waa parti démocratique sénégalais li ñu bëgg jamono ji nag ñu daal di càmbaraat nag lu jëm ci processus électoral bi ci doon daal déggoo amagul nag bés bi le jour dellu soit ci article 36 jëm ci nag bu ñu weesoo ñaari fan ci weeru avril yéenekaay bi ne nag loolee moo waral président de la république nag war a dem seeti ji waa conseil bi ngir ñu xam ban date la ñuy jàpp ngir amal ci élection yi nag Ndiaga Sylla moom ba ngay xam xamle ci biir yëglekaay bi nag ne dogal gi nga xam ne rek waa conseil constitutionnel jël na ko du ñàkk ay njeexital yu mu jur ci loi bi waaye lum ci mënti doon daal nañu jiital ay waxtaan rek ngir mën a déggoo déggoo googee nag ngir mu am faaw ñu daal di dooraat nag processus bi nag mooy xalaatu parti démocratique sénégalais ak candidat yi ñu rëkkale Malick Gakou moom bu sañoon nag ñetti fan wala fanweeri fan ak benn ci weeru mars ca la ñuy amal élection présidentielle yi lu soxol décision bi nga xam ne rek moo tukkee ci conseil constitutionnel nag jëm ci tuxal gi ñu naroon a tuxal nag lii di élection présidentielle yi laas yëglekaay ma ngay dellu suwaat ci taxawaayub assemblée nationale jëm ci juróom-ñaari sages yi nag lu mu ci mënti doon daal aar suñuy élection ñoom nag am nañu ndam bu baax a baax ci marche silencieuse bi nga xam ne rek doon nañ ko amal ci biir réew Sénégal ginnaaw lu élection yi nga xam ne rek dañu ko bëggoon a dàq si du quotidien nag di xam ne ne ay junniy junniy sénégalais nañu ci mbedd mi samedi ji ñu weesu di xam ne daal ni ñetti fan wala fukki fan ci weeru mars nag mooy date bi ñu bëgg ñu amal ci nag lii nga xam ne moo di élection présidentielle yi ba noppi nag di woowaa conseil constitutionnel nag ngir mu gën a bàyyi xel nag doxalin gi nga xam ne moom la ñu fas yéene doxalee nag lu jëm ci wotey jiitu réew mi fileeg ñuy amal nag lu jëm ci wàllu passation du pouvoir jeexaleeg lu jëm ci wàllu tàggat yaram ak réew muy àdduwaat ci mondial bi ñuy amalee ci wàllu bi beach soccer ci atum 2024 suñu gaynde yi nag jamono ji am nañu ndam ci kaw waa Colombie ba jàll ci ab qualification suñu lamb daal di dellu siwaat nag ci jongante bi amoon ci diggante écurie Lansar ak Bawol Mbooloo samedi ji ñu weesu nag yéenekaay bi nag di xam ne ni nag kii di nagas moom dafa daal di wane boppam jaay doole kii di Boy Sadio daal di koy daan 4 appuis mbokk yi lee gënoon fas yëglekaay yi jàmm ak jàmm Société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen doon may seen revue de